asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi fii ci Touba Seexu ga di wax qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sëñ Papa Guèye Ibra Ibra Guèye gën koo xam sëriñ Ibra Guèye ah, moom la ñuy moom la ñuy wax ne nelaw na foofu ci yoon wi moom nag noo bokk benn baay waaw noo bokk benn baay mu déparé woon Ndakaaru dem dëkk bu ñuy wax Kayaar foofu lañu déparé tey ak ci boor yi 11 heures la ñu yëgal ne moom wàcc na bu liggéey ñi mu àndoon ñoo ñu ko wax ne wàcc na liggéey biñ départ ci dimanche yi xam naa bi ñu amee ñeenti fan la yàlla dogal mu faatu ci biir gaal gi loolu daal la ñuy wax ñun yëguñu woon dem ngi sax noonu daal la ñu ko déggee. waaw yàlla dogal nag ñi mu àndaloon ñooñu am nañu àgg ñooñu ñoo woote xamal ne Pape moom bokk na ci ñu faatu nee nañ nag juróom benn nit ñoo faatu ñeenti sénégalais ak ñaari gambie ñi ñu woo daal ñoo ñu wax loolu ci leen doog a xam ne loolu wér na mu nangoo liggéey lool nekk nangoo jaam yàlla nag jamono yële paas sax bi ko fi Macky Sall téye ci biir kaso bi ci jamono yooyu sax la takkoon soxna daanaka daa takkoon soxna ay keesu rek ñu arrêté woon ko yaa ngi fi doon dégg moo ko Ousmane Diagne mouvement kàcc kàcc ba mu fa jógee nag ba mu jógee ci yooyu daal ay tolof yu kii xam naa moo tax mu ne na jóg dellu rek dem wuti liggéey wut lum teraanga li teraanga ju mu wutal waa këram ci yooyu daal ci pexe yooyu daal ci la yàlla dogal bakkanam daal di waatu waaw yàlla na ko yàlla yërëm taxaat ajjuma ajjuma lañ koy ñaanal loolu la bàyyam wax ajjuma lañ koy ñaanal fii ci ñett fan yi fii ci waa sexaw ga incha allah bi koor bi nag jotuñu ci ñeneen biir géej gi moom nag yaayam moo ko yar gannaaw bi mu jógee daara ja ba jàngi ba pare ñëw fii toog di jàng métier métier mu ñuy wax téyër moom la doon gannaaw bi ne la nekkoon ci télévision bu ñu wax leeral TV yooyu mu doon métier mi ñu def magam ju mbokk ndey baay la nekk ci kër gi daanaka sax moom moo ci gën a mooy caat ñoom la fi nekkal fii ci kër gi ñi ñooy ay magam ñoo bokk ndey ak bay man maam moom ñoo bokk benn baay waaye nag ku jàngoon alxuraan la te nangoo jaam yàlla ñii daal la yàlla dogal. Papito sama rakk la woon ñoo bokk ndey ak baay am jom lool daane doole rek moo ko taxoon a yóbbu bu bët ki Demba ñaay ubbi na fii place ba avancé deux cent mille machine yaa ngi nii ci biir kër gi démb leen daaj ji néeg bi biñ nañoo egg na amoon yaakaar lool bëggoon teral magam ak i waajuram loolu moo ko taxoon a génn ndax dëkk bi xajoo ci li mu fi bëggoon mënatu ko fee am moo ko taxoon a walanteer dugg ci gaal yi ñun loolu rek lañ ci am. àgguwu ñu de loolu dong lañ ci am heure bii démb lan la woon ne yegg na sama sama rakk bu góor moo woon ma paap yegg na ma ne ko paap fu muy yegg mu ne ma daa dem ci gaali lii laa ci am. metti lool rek nag metti lool waaw fa fekk nii ma doon dem di jëndee rafetaay ma ceebu bi euh, ñuy dundee ndeke yow moom lañ koy dajale tey. metti lool kon mbetteel mënut a romb loolu fi ma doon jëndee ceeb bi jëlan ma ko woon noonu ci magasin bi ne ma papito mo gaañu ma ne leen kii sama rakk la fa laa yuuxoo baax rek nag te laa bir ñeme njaboot bëgg ay jarbaatam waaw baax rek nag laa mën a seede ci moom waaw xuloowut xeexut amut ak kenn xaar ma yàlla waaw ne ci liggéeyam rek. papito Kara ñoo bokk benn baay kii kii itam mooy suñu mag sëriñ Aliou Guèye xasaayit lañ koy woowee waaw kooku nga doon wax a léegi ku góor gi Modou Guèye la tudd sama rakk la keneen ki jaal gi la tudd magi suñu mag la mooy magi papito mooy fii seen yaay ndax seen yaay dafa wàcc kii nag mooy suñ kilifa jun ñëpp mooy suñu pap xale bu baax la ku nangoo woon a liggéey la ku nangoo jaamu yàlla la ku jàng alxuraan la waaw te itam wut lu baax ak wut teraanga bëgg a teral ay bokkam ak i way juróom ak soxnaam moo ko tax dugg ci gaal yi ne moom sax dugg ci gaal dawul mbiram daaw ko sax waxtaane waaye nit ki moom fi fi muy faatoo yàlla rek moo xam kenn ku ne fa ngay faatoo faaw nga dem fa faatu di fa waaw